dem ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabil alamin ku xam mbay guy gi ak sañ-sañ bi muy ñëwee. est-ce que yaa ngi suuraale loolu ci combat bi. maa ko ëppale sañ-sañ. suuf. Eh, bisimilah lu ñu war daal. kam mooy divisé ci mais gisoon combat bi ñu jàppoon ko ba desul lu dul date bi yaakaar naa soreetul nga blessé ba xam armée mii ñuy wax ak moom wér na. waaw jaam ak pexeem yàlla ak dogalam euh, du suñu bëgg-bëgg du suñu luñ bëggoon tamit ci làmb ji yàllaa dogal ne damaa waroon a blessé journée boobu waruma ci bëre noonu la demee ñu ngi sant yàlla bu baax reprendre na suñu entraînement aussi mhm. lan ngay wax mbay guy gi ak sañ-sañam mbay guy gi ak ruubeem lan nga koy wax maa ko ëppale fuuf maa ko dàq ruube maa ko bu sañ-sañ loolu rek laa koy wax dangaa dawoon de waaye yàgg-yàgg ngeen ma wax la benn wax bu ma koy war a war a wax ji nga yóbbu nga yóbbu nga yóbbante ko ma yóbbante ko nga yoxal boo ko ko bokk. kuy lekk lu am karaw lu ñu suqi du la jaaxal. <laughs> dama gis beneen armée lan la dañ la déy wala da yaakaar ni fi nga toll ci làmb waroo lan moo tax armée changé ci lu bëree bëri. non armée dafa am staff. Mhm. lu manqué woon ci làmb. Mhm. am na nekk sama bët ma ma war a jëli taxawaal war ma caalaan war ma yàlla na yàlla suturaal. lan kàddu ngay wax mbay mi. waaw li ko wax daal moom daal di per ñi ñëw di per ñi ñëw. waaw suma frère sumay doomu ndey yëpp. waaw ma leen di sant bu baax a baax. daa ngi noonu daa ngi noonu